ñaari yoo xamante ne moom macha allah <laughs> Kiné Ndiaye nga xamante ne coach en couple ak Amadou Niang di coach formateur. donc wow. est-ce que yow partagé nga <laughs> avis ñi naan souvent place jigéen ci kër ga la place jigéen daal place am mooy nekk femme au foyer. déedéet partagé wu ma avis boobu. Mhm. te damay rejoindre un peu soxna Kiné ci li wax. Mhm. xam nga euh, man damay faral di wax ni. Mhm. jigéen moo ëpp responsabilité góor. parce que dañ naan la euh, jigéen day avancer par les sentiments c'est que jigéen bu sentir benn sécurité bu sentir benn rassurance wala bu si elle n'est pas rassurée rek. Mhm. c'est que du mën a def liggéey bi travail bi comme il faut. éducation des enfants toog ci kër gi yar doom yi. Mhm. mais nag euh, le monde a évolué. ndax bu ñu nee jigéen moom déjà nañ ne jigéen moom mooy avenir u dëkk donc jigéen am na ay responsabilités yu bari yoo xamante ne dafa tegu ci ay mbagam.